tout droit Joal Fadiouth installation gis ngeen mbaal yi nii gaa ngi si job bi di samp ay Wow, waaw fii lay xëyee ci pencum tubaab à grand-père le nouveau reporter de la TV <laughs> à tout droit Wow. waaw fii 100 pour cent Wow. la waaw ku ne xam ne Wow. bi fu mujjee am doona waar waaw parce que làmb boo xam ne fekk nga fi huit ba ba neuf gëj naa am. te fii lay xewee ci Ndubaat. waaw Sangomarine Joal bi ma fi tëgg làmb te mm. indiwaatuma ko Ndubaat ci géew mm. cosaan bi. kon gars yi. waaw ku ñëwul rek da ragal. ku ñëwul da ngaa ragal ñoo ngi amateur yi bu baax a baax a baax. a baax lu ne fan kenn di ko jeex. dina amoom du am. waaw bâche yaa ngi nii. waaw te gaa yaa ngi nii te gars yi nañu pare. waaw mbër yaa ngi fi gis naa fi ay champion yoo xam ne commencé nañoo ñëw bu baax a baax bindu si bindu si bi waaw waaw ban heure a jot ay dix heures yooyu ba tey ay ah? gis naa fi ay champion kon leen waaw tur laay bañ a wax ah. <laughs> yaa ngi nii góor gi Senghor kaay le a ngi si job bi siyaar naa la eh, lay delloo siyaar lépp jàmm waay cool boy lamb ji tey la la mercredi le ak suba jeudi le 18 le 18 waaw wal amateur yeeg mbër yi. waaw maay maay nuyu amateur yi yëpp. ak mhm. euh, ñuy dund làmb ak lu làmb daal. waaw leen di oo si bés bi tey bésu tey bi le 17 ak le 18 ñu ñëw seetaan si mbëri yi it maa leen di woo. Uh-huh. ñu ñëw. finalement nag li fi xew li fi jaar foog naa mën nañ ko expliquer quoi. waaw foog naa yow defoon nga si ay jéego sax comme nag yiñ ñu tegoon. waaw te par la suite après ñu wër ay nag te nagu làmb yi dañoo cher. après par la suite lañ def mise bi 2 millions 500 quoi. waaw. di woo waa Joal yëpp ak li wër Sénégal yëpp daal maa leen di woo ñu ñëw seetaan suñu làmb ji quoi. Mhm. waaw. di jaajëfal Lamine TV bu baax. tout droit Joal. Fadiouth. voilà avec Lamine TV. ak góor gi Senghor. jaajëf booy nga afudule Senghor aywa ñaama boo waagate. <laughs> deux kilos mburu ñàkkoor taa. parce que gars si bâche kon gars ñoo ko gisandoo ah làmb ji amee gis nga paa yi commencé na ñoo ñëw dañoo bëgg làmb nag waa Joal. macha li lii ko gisee nga xamne geewu géew la gis ngeen penc mi ñaari bente ñëw seere laneen budaayi nek na zoal fadjur a no fop ñu lay ngoyal meen ngor ke ayuna channel ke kon tout droit zoal fadjur